vendredi 29 octobre mbokki bisimila dal ak jàmm seen revue d'actualité ñu dooree ko ak stade olympique bi ñu tabax foofu la ci jëm ñaajoo jàppale na fu ñu tollu leen ci deseti ni dafa a dem foofu la ci Juventus waxtaane itam Youssou Diall ginnaaw bañ ko ajee ñaari at jàppale ne CAF wàññil na ko boobu pen football ca plage ba moo nar a nekk suñu ponk bu mujj ak Ngale Sylla nga xam ne ni daal dina fësal liste bi joueur nar a dem foofu la ci Dubaï nes gis ñu daal di leen koy frank fàcc Okay. kii bisimila ñu tambali suñu revue d'actualité ak stade olympique bi nga xam ne nii mu ngi foofule ci jam ñaajo Sénégal di ko tabax depuis fi mu toll nii ñaari at ñu jàppale du yàgg dara stade boobu la dina daal di pare loolu la ki nga xam ne nii moo Djibril Diop nekk responsable des projets bu jam ñaajo daal di xamle stade boobu la nga xam ne ni lu tolloog 1500 doomu aadama ñu ci liggéey bés bu yàlla sax dina pare fii ak mois de février mu nar a nekk stade bi nga xam ne ni dina am lu tolloog 50 mille places am ñeent vestiaire benn musée benn salle de conférence ak loge présentiel yi nga xam ne ni dina am ay bureau yu mucc ay mu nekk stade bi nga xam ne nii itam dina am li nga xam ne nii moom la ñu woowee salle massage nar am ay vibromasseur yi nga xam ne nii dafay permettre joueurs yi daal di gaaw a récupérer stade de boobu boobule itam dina daal di am li nga xam ne nii moom mooy piste d'athlétisme bu am 2000 places leen li nga xam ne nii dina ko daal di am mooy technologie bi nga xam ne nii moom mooy jëm ci wàllum VAR mun na la nekk technologie arbitrage bi nga xam ne ni gisaguñ ko fii ci Afrique de l'Ouest ñu fàttali leen stade olympique bu Diamniadio lu tolloog 150 milliards ci suñu koppor daal nañ ko ciy def te fii ak février bu ci yàlla àndee dina daal di pare ñu daal di waxtaanee football ak Kalidou Koulibaly mi nga xam ne nii bés bu yàlla sàkk mi ngi fësal attachement am ak club boobule di Naples. défenseur sénégalais boobule nga xam ne nii ci atum 2014 la daal di dem foofule ca Naples jugee foofule ca Belgique boobu ba léegi mi ngi ngooy ci club boobu leen même sax bu fekkee ne am na ay club yeneen yu am doole yu ko bëgg bëgg bi mu bëgg Naples moo waral mu daal di fëgg dënnam daal di wax ne moom du mës a joué ci Juventus ndaxte ci ñaari club yooyu ay rivaux lañu joueur sénégalais boobu le xam ne nii moom mën na jouer yeneen club ba mu des Juventus gis na boppam Barça Real wala sax Manchester City waaye Juventus moom war na wàcc ne du fa jouer loolu di findeer ne Kalidou Koulibaly du mës a trahir Naples ndax bés bu jógee foofu dem ci Juventus supporters yi dañ koy daal di jàppee comme trahison ñu fàttali leen défenseur boobu boobule mi ngi sous contrat ba 2023 ak Naples ñu jugee ci Italie ñëw dellu ci ci Sénégal waxtaane Youssou Dial mi nga xam ne nii moom mooy chargé bu football bu jaraaf dirigeant jaraaf man boobu la nga xam ne ni dañ ko daal di ajoon lu tolloog ñaari at ginnaaw ba ñu ràññeewee ay gestes yu tegginewul jóge ci moom jëm ci yeneen joueurs yi nekk foofu la ci Coton Sport ñeel jongante bu jëmoon ci coupe CAF ci diggante jaraaf ak Coton wàññil nañ ko penam maanaam dafa jógee ci suspension wu ñaari at daal di wàcc ba ci benn at loolu la ki nga xam ne nii mooy Léonard Diagne bu secrétaire général bu jaraaf daal di xamle mi ngi xamal itam ne joueur boobu di Mamadou Sylla ak Albert Lamane Diène ñi nga xam ne nii dañ leen daal di ajoon lu tolloog juróom benn match dañ daal di wëyal seen pen ndaxte kaaf baalu leen leneen li nga xam ne nii kaaf baalu leen ko mooy amende bi nga xam ne ni moom lañ leen daal di tegoon cinquante mille dollars wala lu ëpp vingt-huit millions ci suñu koppar jaraaf dina ko daal di fay mu nekk amende ñu daal di jàll ci beach soccer maanaam football de la plage daal waxtaanee suñu joueurs yi nga xam ni dañ leen daal di convoqué ñu fas yéene bokk ci tournoi international bu Dubaay. démb ci bëccëg yi ki nga xam ne nii moom mooy Ngalla Sylla nekk entraîneur bu équipe nationale bu beach soccer daal dina fësal liste bu tolloo fukk ak ñaar joueurs yi nga xam ne ni daal di leen convoqué ñu fas yéene bokk ci tournoi international bu Dubaay. ñu daal di ci ràññee ñetti joueurs yi yees waaye itam gaynde yi nga xam ne ni demoon nañ ci coupe du monde bi ñu weesu Janinu Diatta mi nga xam ne ni dañ ko daal di ndax ndaxte dafa joué woon li nga xam ne nii moom mooy nawetaan moom mujj nañ koo baal mi ngi ci liste bi waaye Babacar Fall li nga xam ne nii moom ak Janinu Diatta ñoo bokkoon kaa moom convoqué wuñu ko ñu daal di leen fàttali ne tournoi international boobu la dina daal di tàmbali le 2 novembre te le 6 lay jeex loolu moo nekkoon seen dernier point seen revue d'actualité di leen jaajëfal ci teewlu bi di leen jox dig daje lundi incha allah. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.